أهلا بشهر المولد ذكرنا بالمحتدي aslil usul mbokki Sénégal Maulana Cheikh Ousmane Touré borom kemtaanu secret yi di ku yàlla may ci wàllu ñaan nekk tradipraticien bu mag mi ngi fii ci Géejawaay jàkkaarloog terminus 38 bi ci wetu marché jeudi bi ah mbokk yi Maulana Cheikh Ousmane Touré borom kéemtaanu secret yi lépp loo yittewoo ci wàllu ñaan rek gaawal ñëw seet si ko di jàppale doomu aadama yi ci façon ñaan yu bari nag bu ci mel ni ceen gi nga xam ne day ubbi say mbir lépp looy dugg bëgg ci ceenu Cheikh Ousmane Touré gii yow mii def commerce bëgg loo jaay mu jar wala yow mii def concours wala examen ak examen bu mën di doon ba ci mbokki politiciens yi nga xam ne dañoo bëgg mbooloo wala ñu bëgg falu yow mii def business gaawal seet si Maulana Cheikh Ousmane Touré borom kéemtaanu secret yi sama mbokk sportif yi nag ñëpp ràññee Maulana Cheikh Ousmane Touré mbër yi ba ci footballeur yi ku ci jàppanteeg Maulana Cheikh Ousmane Touré doo ko rëccu Maulana Cheikh Ousmane Touré yemul foofu de waaye yow mi bëgg a tukki ambassade boo dem ñu rejeté say këyit gaawal seet si Cheikh Ousmane Touré sa tukki jàpp jàppandi yow mi wut place mu tëla foo déposé say këyit ñu ne la du fii gaawal am ci jaaro Cheikh Ousmane Touré bii jaaro bi dina ubbi say mbir te bunt boo fëgg mu ubbeeku Cheikh Ousmane Touré day defar miina bi nga xam ne dalay aar ci lépp lu jëm ci wàllu fetel wala arme blanche muy paaka ak lépp lu jëm ci xeetu weñ miina bi dalay aar ci accident oto wala avion wala bateau lépp lu mu ci mën di doon boo amee miina bi doo ci bokk ah mbokk yi ndomboy Cheikh Ousmane Touré yi nag ñëpp ci war a am di ndombo ya nga xam ne dalay protéger ci lépp lu la mën a lor yow mi xulloog nit mu dal di lay tëkku fexeel am ci ndomboy Cheikh Ousmane yi ku la ku nekk ci kawam lay dellu bi dalay aar ci wàllu jinne ak nitu gudd guddi te ku ko takk ku nekk doo dugg prison a mbokk yi ndomb Cheikh Ousmane Touré bii daal ñëpp ci war a wut Cheikh Ousmane yemul foofu de ndax day defar sifaawu jooni jooni di faj juróom-ñaar fukki jàngaro ma daal di la ciy limal lu ci mel ni jabet góor gu néew kattan wala góor gu tele estomac wala hémorroïde lu ci mel ni cataracte ndoxum siti fatiguement général wala ballonnement wala stérilité wala cuuraay bii di cuuraayu seytaani yow mi seytaani jàpp fu nekk ñu yóbbu la fa mënoo wër Cheikh ci gaaw mbokk yi naa Cheikh Ousmane Touré borom kéemtaanu secret yaa ngi noonu mu ngi fii ci géej Géejawaay jàkkaarloog terminus 38 bi ci wetu marché jeudi bi soo bëggee jokkoo ak moom mën nga koo woo ci 77 767 57 11 mooy numéro whatsapp bi wala ci 70 485 12 18 yow mi am jafe-jafe ci sa yaram ak bu mu mën mënti doon gaawal seet si Maulana Cheikh Ousmane Touré mii mu jàppale la ci nga daal di gaaw tàggoog moom ma fàttali la adresse bi mi ngi fii ci Géejawaay jàkkaarloog terminus 38 bi ci wetu marché jeudi bi foo taxaw rek na Maulana Cheikh Ousmane Touré laay laaj ñu won la ko di ku yàlla may ci wàllu ñaan di ku ñëpp. ràññee ci wàllu ñaan tamit kon daal jàq ak jaaxle jeex na tàkk ak Maulana Cheikh Ousmane Touré borom kéemtaanu secret yi